ñu ngi associé wu ci félicitations yi ak euh, remerciements yi ci turu allié yi ma jël kàddu ci turu allié yi coalition Diomaye Président ñu associé wu ci félicitations yi ak remerciements yi remerciements yi nag ñu ngi ko jëmale ci population de Tambacounda parce que effectivement comme lu ñu wax comme le doyen Tidiane Sidibé wax léegi pour une première. Peut-être ça s'était passé en 2012, mais la commune de Tambacounda a basculé pour la coalition de Président. C'est une victoire historique, c'est une victoire des jeunes, des femmes, des adultes, des cadres, parce que nous pouvons mobiliser, mobiliser, parce que nous pouvons nañu Tamba l'enjeu était de taille c'est ça la vérité parce que Tambacounda regorge énormément de cadres du camp adverse amaana sax même le premier ministre nga xam ni fu mu ci centre dañ ko dëgg le travail n'était pas du tout facile mais au-delà de Bunda, je pense que c'est le peuple sénégalais qu'il faut remercier et féliciter pour leur maturité et pour leur sens de responsabilité parce que ce lu fi yóbbee tey ñëpp c'est un combat acharné parce que kenn xalaatul woon à mon nom, parce que dara wane wul ni que deux mille mars bi que président Macky Sall passé na woon organiser élection il y a eu énormément de violations de la constitution ñëpp gis nañu lu xew Sénégal musul dund lu c'est une première ci seen international bi yëpp ñuy Sénégal loolu yëpp nag lu rek pouvoir n'a pas une fin alors que nguur da ngay nguur sa nguur sa morom tamit bi démocratie de droit et je pense que effectivement le peuple a rappelé ça à la coalition Benno pour dire que le peuple est souverain et ça venir le peuple sénégalais extraordinaire dañuy féliciter notre candidat qui a été élu d'une manière brillante c'est pour une première musul am ci Sénégal candidat opposition au premier tour loolu musul am à la main, parce que comme nous, wax ko moom Macky Sall sax bu muy en 2012 il a fallu un second tour mais nous sommes en premier tour plus de 57 pour cent chiffre exact yi yoraguñ ko kon lii tàccu leen seen bopp peuple Sénégal moo ko liggéey askan bi moo ko parce qu'il y a eu trop de mal il faut le dire c'est ça la vérité

Sénégal de paix de concorde l'ordre de bëgg et vraiment nous sommes rassurés par le discours de notre président gouvernement élu parce que Néné, Inch'Allah, il va vers la réconciliation nationale parce qu'il faut réconcilier les Sénégalais c'est ça la vérité Néné, il compte gouverner dans la transparence et en toute immunité. kon Inch'Allah, nous aussi il va falloir copier l'ordre issu du président de la République accompagné accompagner dinañ ko projet pour nous am moom ak le président Ousmane Sonko nga xam ne dañ rendre un vibrant hommage parce que c'est s'est sacrifié c'est ça la vérité tey bu ñu yegsee mais tout le monde. il a fallu un combat acharné de tous les démocrates quand on a vu du loo xam ne dañ koy raay raayal fi am c'est un état de fait même mais même si on doit oublier mais il faut qu'on se dise des vérités c'est ça xañ nañu Sénégalais yi lu bëree bëri kenn nelawatul woon kenn amatul woon jàmm kenn nekkatul woon en sécurité mais loolu yëpp tey vraiment peuple sénégalais wane na ko ñu voulons la rupture et wane que fal gën a rafet kon vraiment ñu ngi ñaan Sénégalais yëpp ñu nekk seen ginnaaw président parce que bu réussir ngir Sénégal la. xam nañu suñu gars yi bàyyi nañu dëkk bu métti c'est ça la vérité parce que diwlin cher na cher cher na dund bi cher na courant cher na ndox cher na fépp ay métti tous les signaux sont rouges kon nag dinañ ñaan aussi une période de grâce pour que ñu mën a càmbar mbir mi bu baax ñu mën a teg lépp ci yoon Tambacounda tamit dina am wàllam bu baax a baax parce que c'est historique ñu gagné ci plateau bu baax jërë ngeen jëf